Ablaye daal li ma la wax lii dong la. Hmm? waaw yokkuma ci dara wàññiwuma ci dara. Ah, maa la gën a jaaxal te am nga ci preuve bu leer nañ. lu leer laa am. Ah. te li ma ci gën a metti nag booy bi may génnal ah moom lañ ni ma sa gelu papa laa ilaaha illallah. waaw te loolu jaaxal na ma trop ak ni ma mel si digg dëkk bii waaw di artiste bu mag nekk ci dëkk bii affaire yi daal moom nii la demee jaaxal na ma trop nag ah. man nag waaru naa trop. Baik ko ba salamualaikum. ñëw aleykum Fall Ndiaye la ilaha illallah ah waa yang yaa ngi ya, toog maa ngi toog bu jóor ko te xam na nga laajte waaye da lañ la gërëm mairie ah bisa la maire rajo bala mujj jël jabari buur jabari buur Aku aka ñoo sagal géwal yu ndaw ye jóg géwal yu mag ye jóg ñuy faqastalu hmm. nit ñaa ngay rëjëx rëjëxi ay tey ndam li ma am waaye góorgóorlul góorgóorlul yaali kumba fal njaay gaw la métier gàddaay awaay woon naa la wanal seen yoon waaw waaw kaaw sa di way dooma jàppal gàmm xam nga ne aar cim doon woo ko ci deret de da koy taqale rek kii du dara waaye eh billaahi kaawama bet lu mu doon kii kan la lii ki ñuy màpp kumu kii kumu kii kii ñoom kii la kii di mbaya burger. dañuy koy monté kii doomu tubaab la du nit dañu ko montage ñoo bon waaw ku def lii doomu tubaab ji soppali ko don mag don paa def sa kopati allahu akbar ñu raay nga ni eh waay ndekete nit ngi fen yow daal ni la lay bàyyi ci dëkk bi yow nit ngi fen ba tey de te léegi ñu fi ñëw ma laaj la dépasse nga lànk man yoruma ko woon maye fukki nangam ca àll ba maa ngi gërëm di la gërëm ca mairie ba bul yak ngërëm dama ni la yow wutuma ci yow benn barke ndax sikk nga sikk goo xam ne yow sa sikk man yàlla laay defal yow sa sikk yow nga xëy fii léegi xasama ma ràpp ne aw daal ma laaj la dépense nga man dem damay ji fukki junni ci àll fukki junni lan xale yu ndaw yi di raay sa moustache hmm. te man ku yow bu ma la tege loxo sax nga ba ma xool man su taalee cuuraay nga sot ci ndax naan dama lay jibar wax ji daal bari na yaa ñàkk waaye tey ma wala ba nga noor bii yoon bii yoon nag boo ma naree dam ma woo say mbokk woo samay yoon du ma ci dinaa woo say mbokk woo sama yi lu mu doon. du doxaan sa moromi doom yi. sama moromi doom. ñu ne yow. eh déglu yaa woon nañ fi nag. yaa ma bett. nga damm sama faar. yow maa la ba ma bala nga ma fee defati dara nag. nu ko raw laa def ndax loolu ma say mbokk dama ne eh duma ko ñuy joxoñ. man duma ko ñuy joxoñ. yow garab laa lii eh, dama ay réglé bàyyi mais li lu mu doon ay eh, ana waa kër allahu akbar ay eh, yow yaay ñàkk jom waaye man maa ko def kenn tooñu ma maa tooñ sama bopp te nag sonn naa de loo gis si àdduna daal fa mu yem allahu akbar dinaa ko seetaan allahu akbar waral nga koo jëfe kii moo ma nar a koo jëfe kii dina ma rey de man nag sonn maa la gën a sonn sonn bu dee sonn fii la ëppe yow fii la ëppe fii la ëppe damaa sonn ma am jël dem da dem ngénte la ma ci am jël sonn naa mu ne maa boole xale ma wokkitaat sonal nga ma bon may doga lii lii lii ci suñu borom ay de yow lan la ah li mu doon la lu mu doon xaw ngaa de lu mu doon ah, non li ma li nga gis la rek de saa yi jommi nga de maa ngi fi woon di bàyyi ñàkk jom dama xaar mi dama beneen faar bi yow ba ngay gone nga ñàkk jom yow ba ngay ñàkk jom lu ndaw nga fi ni mas un euh, un euh, fii football amu fi yow daal defal duus bi muy sa kër yaag mbootayam ku lay wër na la wër ca duus ba. nee nga mënuma tulli mënuma tar mbak ma jàpp cool mais dinañ xamal leen de ban fi ne dëgg lu tax sama baay jox ma cooleeg wàllum dënd geeg pees yëpp yow géwélu kaat Afrique nga woon Madara rek nga mënoon a tëgg ak fecc. man moo tax ca ca rek nga daan def. mbasa mbasa doo ko di nga ko fekke allahu akbar vous êtes mauvaise yéen a bon génn kër gi jot na. xalaatal RDC lé eh, eh RDC lii amoo programme ci fu ñu nekk am programme am jëroo répété yaa ngi ko fuloo trop dañ nga nag yow neexul ba neexul waaye yéene ma lu baax su dikkee damaa ko ñëw rek fas sama kanam ndax korog laaya nañu fii mën a gaw waaye su ko defee damay ñàkk fayda tey naa la wax sama soxla ah xam nga ni sa rakk ji bëgg ba tof xam nga ni bëgg naa ko waaye ñemewu ma ko xam nga lépp xam nga ni man bëgg naa booy bi waaye ñemewu ma booy bi léegi nag la moo tax nga bàyyi may dundee misère te ma yow ma booy bi jege débiteur yi taxul nga lek yap waye xet gi dina la waaw dama ni dama bëgg nga and ak dégg yow suma la méré rek contre temps tax ma méré la contre temps képp tax ma méré la dama bëgg sa ragal gi nga bako ragal gi la bëgg nga bayiko ko te wax la yow da ngaa bëgg ciat ah ay caata ngi ni ci biir kër gi lén dina la ko xamal limay woy contre temps la waye sa yu ma woyé mu nek contre nga modifier ko mu temps ko ci ngeur xamna lepp way nga sama woy la man maay woy ngay modifié lu ma gën a contre temps bu waree am un te amul un nga dugal fi un mu nekk tàng woy ko ñu ne yaa koy fekk man maa ko woy ba ay sama un un yi ngay jël woy code boobu di woy sax sax samay un un lay jël yéen la sama li pirate loolu may piraté yow boo amoon ni air génne ko bu yàgg yow amoo ay air koy boof tuur kan moo yooyu di gaa ngi nii eh, boo lay xam nit dafa ragal. yaa du dafa dama tax maag si ma dem accompagné ma ngi rek pëlal maa ngi lay dégg la si xol lay jógee ku la bëggati bëgg ku la may su la mere nga jooyee mani yow laay xalaat mani yow laay xalaat yaa ma tere nalaw mani bëgg ma la ragal la rek moo tee ma ñëw ki way wayu wayu ko ni waa léegi amul droit modifié non non non non amul modifié modifié ci boppam koy ba dama bëgg nga way ko ci ni nga xam ni ki ko way noonu la ko wayee te bàyyi modifié di bàyyil contre temps yi waay yow nag suñu ànd bu ñu doon ànd dina nag sama sama way yi léegi nag xoola léegi nag con concurrence bi mooy ñëw yow de xool naa ba xool ba xam ne yow mii li may woy bu góo ko léegi nag yow nañ si dem nañ concurrence beneen bis tegu di nga naan nen lu tax waaw voix bi tamit des na waaye yow yow su ma naan nen yow nga naan ployé yow su ko dégg si subi femme moo ne li ma dàqe femme femme aleykum salaam ci la ne yaa si jàmm ñi nga def léegi baax na de nga ma xool cousin maa ngi dégg ça va eh, cousin cay ci la nekkee sama doom ndey yaa ngi nii dëgg naa la ah, la ilaha illallah la waxal say wax fii man kii waa kii lu la nekkee la ñuy muy réer rek waaw mais cey sama doomu ndey namu naa la de na ko wax eh, ma sant yàlla ba ba lépp na lépp ndam nii cey sama doomu ndey nekk ci rek ah eh, mais am fekk neexoo ma ah. waaw sabari xam nga confirmation ah, mais sabari daa daa yi donc da doon rek temps yi dëkk bi doxul ci loolu affaire yi mooy loolu affaire bi cey mais note baa ngi fi ba léegi de ah xaar rek ma ñam ci ndel waaye cim sama doomu ndey boy jàpp ma gaam man nii laa la xamee woon jàpp ma gaam cim jàpp ma gaam non non non non ñëw rek <laughs> cey lii ah cey ngewal ay waay xoola xoola xoolal mais mais kii fekk ñu fekk neex na waaye yow neex yow waxal waxal say wax mais frère dama laa nam waaw waaw mais ci loo ne nam naa lii mais yow laa gën a nam ah? cey ah? ah, sama doomu ndey mais si jàmm mais note gi ba loxo baa ngi fi ba léegi foré confirmant bi ah ak koor yi ma gis nii ci loxo non non dañuy foré confirmant bi tax yaa ma gën cey sama doomu ndey moo dégg asama nijaay waaw mi ngi fi xam nga rek waaw mi ngi si jàmm waaw lépp lu jaay la xam nga rek mooy loolu waaw billaay mais namm naa trop mais doom dama laa namm doom day mais naka waa mbu fee mbuur baa ñu ngi si jàmm mbuur ba macha Allah mbuur soose mbuur kankurang tukulóor mbuur tukulóor ah cori mama waaw ah yaa may delloo gi moom cim ay laay la doom day xaaral ma xool caat ah caat waaw waaw léegi léegi cay man de gii dégg mbus boo ko gis ci àdduna ci la na chéri ci la nam na dafa war a dem par exemple répétition ma ne xaaral ma jaar fi xool. waaw ah, boo wane ko dem ci naa fi jaar. naa la xaar naa fi jaar maa ngi dem balaa gën a guddi heure bii rek yaa ma gën a xam. baa ma doon ci kanam saa ok booy ñëw fa. ah. cay su dee mbëggeel ngay daw di wut foo laa ko séri bëgg naa la. yaay borom teraangaay kon yaa ko tere neelu guddi ya gi ni la neexee ya man de bëgg naa la chéri boy mbëggeel ni la neexee waay waay mbëggeel foo jëm waa bu ci nopp sa siiri booy dee ko sagal xol maa ngi ni jàppale ko muy guddi maamu naaj yow lay wër man kaaw kaaw kaaw dina yàq orchestre bagage yëpp dina ko yàq te li ci war du ko def Mang ngi nii di lijjantiwaat bagage bi peeg bu ne ma rofaat ko di xëcaat ci waaw si waaw maa ngi nii rek bi lay kaaw ma sonal kaaw rek ma sonal ah loolu doy na waar mais yow del toog foo jógee nii ak confinement bi nit ñi tëju waaw réseau de plus confinement bi bëgg moon sax génn di dem di jàng ji feneen mais fii mënuma fi am jàmm ndax kaaw kaaw lu mu def du may jàng sax mu ñëw perturbé ma mënumaa am jàmm ndax tëggam tëggam te su ma ci waxee sama papa ñëw ni kaaw moo am dëgg yow nag laa bëgg nga jàppale ma ci comme que yow yaay sama turandoo yow lañu ma tuddee ngay sama baay dimbale nga jàppale ma ci loolu bu dee tëgg bi ngay bañ li ngay bañ ci gi moo fi am li ngay bañ ci kër gi nga xam ko xam nga la yéen ñëpp yam foog naa nga sama papa sax waaye yéen a yam a lu ñu am moonu ko may ba lay ngénte fii di ma la tuddee damaa tag ba naaw ñett li caay laa tegale benn paalaatu yëpp xar leen laa bëgg nga xam ko nag xam nga laabu nga xam ko mooy ah. nga jël ci ngéwal gi nàmp ci ngéwal gi yow sa njàng mii du sori père yow bëgg la nga jàppale moo tax ma ñëw di la wax mais yow yaakaar naa ne yaag sama papa yéen a yem fi mu nekk dinañ yem foofu ak kaaw kaaw barki dem rek laa xuloo fi ba nar fee xeex moom mais nga jàppale ma ci ndax xamal dinaa mën li nga bëgg laa mënul parce que ngéwal gi nga bëgg ma ba ko di la jàppale ci li nga ne ñun ngéwal xamuñu loolu waxuma na ngeen ba ngéwal cadre a ñëw ci ngéwal cadre cadre ngeen di wax daa war a ñëw ci ngéwél mais ngéwél soo leen sem2 sem2 fu na ko teg ngéwél duñ cadre xam nga tax ma ko ngéwél boo leen jàng na ma sax boo leen koy jàngal dañ koy wéy dëppale na ma sax boo leen koy jàngal dañ koy wéy yóbbu ko ci programme du dox xam nga xam nga géwél li moo tax duñ dem mënuñoo dem parce que tëppal na ma bi rek biñ leen koy dañ ko na ma dab na ma dab ci ci dara ndax man artiste bu incarné la sama loxo yi ci bëgg a ko làmb gi sax dama koy dama koy dóore ay tar mbakk ak lu ne dimbali ma ngir yàlla doon ma tuuti sagal ma Dakar la Dakar laa woon ay temps Dakar gi yaa ngi koy bëgg a sàppil nag fexeel Dakar gi saf fexeel Dakar gi saf ah man mere naa la trop li may foor dara baaxatu ci xale bi billaahi doo dem sam njàng du sori de